borom moto bi moom moo dafa fekkee oto bi parce que dafa jënd ab sareet waaw dafa jënd sareet bi après bu ñu génnee da leen moom mu ngi jaakaaru koor bi quoi a dugaat xamatul waaw mu wute oto bi mm-hmm. samay daw na ko daw mais moo dugg si si ronoto bi yoroon na casque waaw non seetlu seetlu ma casque mm-hmm. parce man oto bële laa yor camion bu vert vert blanc bële mais maa ngi fay jaakaaru ko mm-hmm. yàlla si presque borom moto yi parce que ñoom dañuy génn fu baaxul te tamit duñ taw ndànk te boo dajee ko doo mën a frein te xam na aussi li taw si tali daal bëri na yàlla tali xam na wax dëgg yàlla xam na bëri na ay pax tali bi xam na bëri na ay pax te benn instant ñaari ñaari camion sax mënuñu fee rombante normal saaka daal ñu yaatal tali bi ba baax pax yi ñu defar ko dañoo nekk ci waajal màggal bi bu ci ndigal ci comité organisation bi bi ñu ba fii nag lañ fekk léegi euh, benn benn corps mu tëdd gendarme yaa ngi fi muy muy lu metti ku yoroon moto la benn benn yii di tibb suuf laal ngi nii vraiment jëlaguñ ko ambulance baa ngi ñëw pour jël dañ ci profité rek euh, sensibiliser ñëpp muy ñuy dawal moto yi xale yi moto lu jar a moytu la mais également ñi nga xam ne ñoo yor benn yi aussi mhm. ca oto yi ñu yor ñu oto yu am doole hein ñoom itam diggante hôpital bi ak kër sëñ Cheikh Sidi Maxtaar bi mu nekk tronçon boo xam ne euh, guddul vraiment waaw ñu moytu daal ñëpp moytu mhm. ñaanal fi yàlla xaaral ko àjjana nii mu wàccee métti na trop wax dëgg yàlla. métti mm-hmm. na métti na donc mu ngi nii tëdd. ñëpp moytu rek. Mm-hmm. waaw ndax. ñaan leen daal waaw oto yi bari na. waaye xale yi itam moto yi doy na waar daal. moom waaw waaye nañ gën a moytu daal. mooy borom oto yi tamit. borom oto yi ñëpp rek sensibiliser sensibiliser ñun ñëpp en tant que autorité donc loolu rek lañ ci lañ ci mën a wax. donc en attendant kii xam ni ndax gis nañ. ci xamagu mbokkam waaw xamaguñ mbokkam mais gis nañ ne am na ay papiers ak yooyu yëpp. Mhm. donc loolu aussi euh, defe naa identifié ko du du jëf waaw na ko yàlla xaaree àjjana. Mhm. di naqarlu xew-xew bi nga xam ne am na fii. Mhm. muy diggante bi nga xam ne moo tàmbalee. forage bi nga xam ne boo passé kër Sidi Mokhtar jëm hôpital bu bees ba nga gis na yoon wi daanaka oto yi ni ñu fiy dafa xaw a doy waar lool metti na lool lool lool lool ñun ñi mhm. ne moom lañ sëñ daanaka boo fi liggéey sax da ngay xaw a da a tiit waaw ndax oto yi accès de vitesse yi ñu fiy jaaree day xaw a metti lool boo xoolee loolu moo waral soog bi nga xam ne am na fi benn borom Jakarta ak benn yi nga xam ne ñoom ñooy jógee euh, suuf di dugg waaw nit ñi nit ñi rombante daal boo ko gisee daal sa yaram day daw xanaa ñu ñaax sofóor si yi yor oto yu mag yi bu ndaw boo xam ne nii oto day ñëw oto di ñu bëgg a bi dem te yu mel noonu bari mën na ci judd moo tax daanaka soo mel nii daanaka du jeex ñooy liggéey fii dañoo tàmbalee lampe yi nga xam ne moom lañu def fii kañ si ni mu taal yëpp hôpital bees ba dañ fay yem léegi nii fekk mu demee nii mu demee nii